ñeent ñi uyewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw mbokk grand soir mbokku diine ak jamono ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp di rafet seen teewaay ci seen émission diine ak jamono. diine ak jamono tey ñëwaat nag ak waxtaan boo xamante ne dafa am wax ju ñu fi wax mu juru ko te itam dafa jara taxaw seetlu ndax itam mu ngi juddoo ci li président de la république wax ne télévision yi dafa jàpp ne amuñu programme ndax dañuy jàpp benn wax di ko def di ca joxe kàddu di ca laaj ay nit. loolu dem nag benni ni la ko jur mooy itam mandat bi nga xamante ne dañ ko waroon wàññi muy wax joo xamante ne jeex nañ ko ba sonu mënta jeex taxaw suñu kanam taxaw ci kanamam te mu mel ni itam nekkatul lu ko gënal ndax itam fa demoon mooy ca ziyaara ba fa la ca Louga fa la jéegaloo ba pare jël kàddu ne daal jàpp na ne télévision yi amul programme yi topp nañ daal di def ay débat national di displier kàddu ci yoo xamante ne bokkul ci li mu gis ne mën naa tax réew jëm kanam nee na yéene mooy itam yéene goo xamante ne wàllu dëgëral démocratie la ñu bëri di laaj ndax dëgëral démocratie itam du ku nekk am sa xalaat mën ko wax war ko wax itam te dara du la ca fekk bu fekkee li ngay wax lu jara wax la wala tegu la ñu ne nag kon président république bu fekkente ne waxam nekkul programme kon lan mooy nekkati programme ci réew mi ndax dañ ne président moom mooy lépp moom mi nga xamante ne moom lañ dénk suñu yoon muy président du haut conseil de la magistrature moom la ñu dénk suñu kaaraange muy chef suprême des armées moom lañ dénk suñu nen yëpp muy wàllu koom yoo xam ne moom la ñuy dundee mu def ko ci benn pañe yor ko ñu war koy artu mu bañ a faqastanu fenn lépp tojandoo ñu toog wala nit sànni ko xeer mu toj loolu yëpp boo ko boolee nag tey jii bu waxee ne itam waxam du programme dina jaaxal ñu bari ndax noppeem sax programme la waxatuma nag waxam te bu taxawaloon tey chaîne de télévision boo xamante ci moom rek lay wax télé boobu bees bu mu yeewoo rek am programme ndax bu noppee programme la moom bu waxee itam programme la kon président pour mu waxam ñàkk a doon programme dina xaw a jafe tax nag bi ma ko gisee noonu ma ne naa laajaat ñeneen ñu am seetlu ak ay observateur bi xam ndax am na neneen ñu ko gisee ndax loolu sama xalaat la tax tey jii ñu prier ci ay nit ñoo xamante ne jàpp nañ ni itam war nañoo mën a gunge ci waxtaan boobu bi xam ndax mbir mi dafa am neneen nuñ ko waroon waxee wala feneen fuñ ko waroon waxee ak lu waroon jiitu balaa lii di aksi maa ngi fi tey ak suma naataango Ali Fall nekk journaliste Le Quotidien nekk itam euh, vice président SYNPICS Ali Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fi ak Serigne Saliou Gueye nekk chef desk politique journal Le Témoin Serigne Saliou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousmane. maa ngi fi ak Abdourahmane Sow bokk ci M23 monsieur Sow ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di maa ngi fi ak suma naataango Moustapha Diop nekk ci Walf Quotidien ñu leen di ndokkeel nag Moustapha yéen ak waa Walf Quotidien yëpp. ak équipe bi ngeen ci àndal ci seen deux ans yi nga xam ne dañoo toll itam ci réew mi ne ñu ngi wàññi njëgu carburant yéen ngeen toll ci yokku carburant ngir demaat yeneen défi yu bees mu ne nag ku déggul français défi mooy rek loo xamante ne defar rek a ko fa mën a jëlee ndax itam dafay nekk mbër moo xamante ne entreprise boo taxaw rek song na la kon ci défi yu bees yooyu ñu ngi di ndokkeel di leen ñaanal itam mu gën a woyof ci yéen jërëjëf kon ñu ngi rafetlu seen ci plateau bi nga xam ne tey kon ñu ngi ko jagleel waxtaan boo xamante ne président république moo ko yëkkati woon fële ca ba mu demee ci ziara euh, Louga ba ci famille taal bi loolu nag demaat tey bi juraat wax ndax wax ji itam dañ ne rek baat boo gis rek beneen baat lay woo moo tax itam wax boo ko sumbee rek li lay dugalaat ci yeneen wax waxtaan bi nag président ne daal télévision yi dañu taxaw ci benn mbir rek di ko def débat national di ko waxtaanee rawatina kàddu yoo xamante ne moo ko joxe kàddoom bu mu joxe te mu ngi taxaw itam nee na pour sàmmante ak moom ci loolu nag mu mel ni débat bi da ci xaw xaw a taxaw ci loolu Moustapha bi ma déggee loolu man li ma njëkkoon xalaat mooy président bu fekkee waxam nekkatul programme fan lañ mën a sukkandiku ba jàpp ne ko ndax programme am na ci dëkk bi bu fekkee suñ lépp moom lañ ko jox te itam kàddoom am lu mu représenté ci réew mi. Ousmane maa ngi nuyuwaat di la gërëm bi di nuyu ñi ñu baax ñi seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, man wax ji président di wax bi mu koy wax samedi daf ma fekk euh, Louga. fa mu koy waxee fa la ma fekk ndaxte euh, dama fa dem di seeti njaboot gi dajeek moom président mu nekk fa li ma njëkk jaaxal mooy dama génn ci sama kër jëm ci beneen euh, kër gis ne euh, président fa mu ko doon waxtaanee ma nga nekk fi quartier bu ñuy tudd cité bu ñuy tuddee cité hôtel ci stade bu ñuy woowee ba wala stade hôtel foofu ak diggante Grand Louga wala hôpital bi boo ko doon natt war na dem fii ak parcelle wala lu ko ëpp mu dale foofu ba Grand Louga ca buntu hôpital ba dañ koo baare ne kenn du fa jaar tey man ni bu ma génnee dama mujj wëri pour jaar fa ci laa laajte lan moo fi xew ñu ne président Macky Sall moo ne ci ziaru Thierno Mountaga Tall mu jaaxal ma trop nag dëkk bu mel ne Louga lan moo fa war a xew ban danger moo fa war a am bu fa président ñëwee ñu tee nit ñi circuler ci condition yooyu loolu mooy li ma fekke bi ma laajtee ñu ne ma président moo fi nekk ci laa déglu wax ci dégg ñu ne dafa ñëwoon ci ziar bi yëkkati fa ay kàddu wax ci programme mu télé ak mandaam boo xam ne dañuy topp di ko waxtaane fu ñu toll li ma gën a jaaxal sax contexte ak opportunité wu communication bi parce que yaakaar naa ne ab ziar wala ab màggal wala ab gàmm bu ñu fa demee mën nañ fa waxtaane leen lul ay programme télévision muy benn beneen bi mooy euh, mandat wu président yow yaa ko wax léegi mm-hmm. buñ ko waxtaanewul lan lañ war a waxtaane ci réew mi may fàttali ne Sénégal réew la moo xam ne damay dégg souvent ñuy wax ne depuis 1800 nangam nangam ñu ngi fi voté ku ne voté ne débat cela veut dire quoi que ni Sénégalais yi xaaruñu ba Macky Sall ñëw ñuy débat Senghor ne na fi président ñuy débat ci amphithéâtre université yi ci tee débat yi ci feneen ak feneen Abdou Diouf nekk fi président RTS rek nekk fi comme média ñuy débat Ablaye Wade ñëw télé yi commencé di bari nit ñi di continuer di débat donc c' est pas avec Macky Sall que sénégalais yi dañuy arrêté di débattre parce que débat jig nañu nag di débat ci réew mi xëy na buñ débat wuloon dina jur leneen lu mu du xew ci yeneen réew yi eh, eh, mu yóbbu ma ci leen man dama yaakaar ne président Macky Sall sénégalais dañ ko wóolu fal ko mu am ñu ko wër di ko wax lu ko neex ba mujj placé ko ci li tubaab di waxee di woowee tour d'ivoire maanaam mu nekk foo xam ne daanaka dafa perdre le contact ak les sénégalais xamatul sénégalais yi fan la ñu nekk te loolu li koy jur mooy manque d'humilité parce que Ousmane man li ma gëm moo di ne tey bu ñu doon wàññi euh, tey bu ñu xooloon président yi jiite Sénégal culture intellectuelle bi nekk ci sengoor newul ci ab Sall xam administration culture de l'administration bi nekk ci ab Abdou Diouf newul ci Macky Sall cursus politique bi nekk ci Ablaye Wade jaar-jaar nekkul ci Macky Sall tey bu ñu waxantee dëgg bu ñu doon xool sénégalais yi gën fukki sénégalais yi gën a jàng ci réew de boo def ndax Macky bokk bu ñu doon xool fukki sénégalais yi nga xam ne ñoo ëppi diplôme ci réew bu ñu deful ndànk Macky Sall ci bokk bu ñu doon xool fukki sénégalais yi nga xam ne xëy na li ñuy woowee cursus professionnel ñoo ko gën la ci réew mi bu ñu deful ndànk Macky Sall du ci bokk bu ñu doon xool fukki sénégalais yi nga xam ne ñoo gën cursus politique ci réew mi bu ñu deful ndànk Macky ci bokk xam nga lu tax ma wax loolu loolu dafa war a tax ñu gëm ne président Macky Sall yàlla moo ko tànn ci sénégalais yi te gënu leen yàlla tànn ko ci sénégalais yi te dàqu leen jàng ñu wóolu ko teg ko seen kanam mu jiitu loolu dafa la war a may humilité su fekkee ne sénégalais yi nangul nañ ko moom président Macky Sall muy dem ba euh, ab woykat deewee fële ci Angleterre mu bind ci compte Twitter am ne naqari na ko am na ci naqar sénégalais yi nangul ko ko mais war na nangul sénégalais yi aussi ñu wax seen wax seen xalaat wax seen xalaat ci mandat wax seen xalaat ci leneen ak leneen seen naturel leneen li moo di dee moom euh, bi mu génnee ci pouvoiru Abdoulaye Wade en 2008 su ma juumul mais RTS a ngi fi woon ba mu fa demee bëgg fa débat dañu ne ko du fi amee fii la ñëw ci RT ci fajiri gi li may wax ça ne date pas du siècle dernier Ndella Amar mi ñu doon maquillé léegi moo maquillé Macky Sall fii ci réew fii ci Walfadjri mu fi ñëw di fi débat ay mbokkam di ñëw di fi débat donc su fekkee ne nangu woon na ñuy débat ci contexte boobu de la même manière dafa war a nangu ñu continuer di débat ci ci ci mandat bi te wax léegi mandat président Macky Sall su fekkee ne débat wuñ ci man xawma ci lan la ñu war a débattre li may ci jàpp moo di ne waxtaane programme ci ay lan mooy programme télévision man ça fukki at ak juróom a ngi nii mën a ci journal di bind xool di gëstu ci évolution presse ci Sénégal li ma gëm Ousmane moo di ne moyens yi presse Sénégal am moyens yi ñu am ñun pour fonctionner taal télé mu fiy tàkk taal rajo mu fiy tàkk ngay génne journal miracle la tous les jours miracle la tous les jours ñi koy def te loolu ku jiite réew Sénégal war nga koo xalaat xalaat ne ay sénégalais ay gor ñooy liggéey ci kër yooyu di def ay miracle tous les jours nga war a xalaat xëy na avant ngay critiquer seen programme nga ne nan laa leen war a jàppale pour que ñu dëgër pour mën a am programme bi gën Sarkozy bi mu faloo France France ñoo ñu ëpp doole foofu gën ñuy média foofu mais ñi jiite média privé bi daf leen a woo ne leen lan mooy seen problème ñu ne ko publicité bii di daw ci télé yi amuñ ci dara su fekkee ne dañ ko bàyyi muy kon ne ñëpp danañ tëj Sarkozy demande que ni les médias publics français bu fa publicité jaar ci yenn heures yi xam nga lu tax pour permettre que médias privés yi mën a capter publicité boobu mu jox leen doole. ñu ne am nañ problème ñoom ak euh, moteur de recherche bi les médias français lay wax ñuy woowee Google. ñu dem wax ko Sarkozy mu ne leen lan mooy problème ñu ne ko Google dafay utiliser suñu ay données te duñu fay. di def pub ci suñu média te duñu fay. mais Sarkozy moo négocier ak Google Google fay su ma juumul 60 milliards. ñu séddoo. mais tey ki jiite Sénégal su fekkoon ne mi ngi ñuy woo ci xalaat yooyu suñu waxee suñu programme ñu mën koo déglu mais man li ma yaakaar te gëm ko mooy dañu nekk ci réew moo xam ne du ci Macky Sall rek la commencé suñu njiit yi li ñu bëgg mooy am ay chaine de télé yoo xam ne waxuma di leen wax leen neex mais dañuy am programme boo xam ne day abrutir sénégalais yi xam ne fecc way théâtre yu demee noonu su ko defee sénégal yi kon ne di ko seetaan suñu doom yi di ko seetaan ba fàtte lan moo tax a jóg na citoyenneté ñu fàtte ko ñëpp ñu abrutir leen fecc ak way rek mu ak lamb moo leen intéressé ci réew mi mm-hmm. mais loolu mënuñ réew munul doxee noonu moment bi Macky Sall di critiquer programme télé yi mais moment boobu ci la la euh, la télévision publique muy la RTS mm-hmm. fekk benn clip boo xam ne ca Cameroun lañ ko tourné tudde ko touche touche la euh, coller la petite. noonu la tudd. clip boobu bi ñu ko génnee Cameroun Paul Biya daf ko interdire. média public RTS gi teg na ko bëccëgu ndara kam suñu xale yi di ko seetaan. nga toog di ko seetaan ak image yoo xam ne allusion directe la au sexe. ñu naan la coller la petite. ba pare yokk ci naan la même si c'est ta sœur la petite. ñu koy seetaan tey bu ko sa doom seetaan Ousmane nga toog mu laaj la ne la papa luy coller la petite loo koy wax. mais loolu lañ war lañ nguur gi war a jóg nu ngi ko lijjante programme télé yi nag il faut ñuy débat moo mhm. mënul ñàkk mënul ñàkk Moustapha Diop dinañ ci dellu siwaat léegi Alifal kon parce que ci fànn woowu da ngay gis ne président nee na yéeneem mooy du renforcer démocratie be tax moom moo moo ko dugal ci eh, am yeneen day wàññi mandat bi mais li renforcer démocratie aussi ñu gis ne liberté d'expression ci la baromètre bi aussi bi ci gën a fës wàllu presse bi la mais président jógee jëkkoon na wax ci wax sa xalaat ne day tardel réew mi moom àndu ci mhm. demoon na fi itam ci Kaffrine wax ci wàllu transhumance bi am nu mu ko gisee woon démb bokkatul ak nu mu ko gisee tey tey bu ñëwaatee di waxaat encore ci wàllu débat yooyu mu ne day nekk on débat boo xamante ne day persister di des yow en tant que technicien de l'information nan nga ko gisee waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax encore une fois Ousmane di nuyu également ñi ma bokkal plateau bi sama xarit yu baax yi euh, di leen ndokkeel waa ci seen anniversaire bi ñu doon fêté démb bu bëkki démb mhm. parce que fanweeri at ak ñaar aussi du ñaari at du ñeenti at mhm. nekk na at yu baree baree baree bari mhm. bari te xëy na lu nekk xew na fi Walfadjri a une histoire pour ñu xam un ñu nekk ci yàgg ci milieu presse donc le fait ko ñuy fêté seen fanweeri at ak ñaar dafa nekk mbégte si ñun dama ci kontaan lu baree bari na xëy na loolu yëpp day wane un la vitalité de la démocratie ici au Sénégal. donc euh, di ñaanal rek groupe bi yëpp. ñu xëy na ñu feetawaat ay at yu baree bare baree baree bari donc euh, ndax Walfadjri ak yeneen groupe yu bari xëy na bu ñu fi nekkul woon. du baax. Euh, balaa may tontu sa question bi aussi il faut ñaari mbir. Mhm. c'est vrai je suis journaliste. j'étais au quotidien j'ai quitté le quotidien récemment pour nekk ci yeneen activité communication. Mmh, d'accord bi ci des euh, Synpics je suis le secrétaire général adjoint. adjoint et porte-parole en même temps. d'accord président amul vice. <laughs> secrétaire général te man fa laa bokk sax. <laughs> ñaari précision yooyu laa bëggoon def. question bi nag dafa am solo. xam nga mhm. euh, Ousmane. démocratie wala jeune démocratie wala dëkk buy euh, jàng nekk démocratie. dafa doy waar xam nga ñi ngi naan débat démocratique dans une jeune démocratie une grande démocratie ça dépend mhm. débat démocratique kenn mënu ko interdire mënul nekk c'est-à-dire et nekk ci jamono joo xamante nii gis nga contrôler wala nga nii xam nga liberté d'expression moom jaratul sax ñu koy wax parce que li ko garantir moo bari mhm. donc bu ne liberté d'expression wax ji jeex na amul naan wii liberté d'expression waaye dañu war a xool fii nu jox nii parole waaye xam nga loolu moom yaakaar naa ni sax yàq wax la euh, bi ma ko déggee aussi xëy na xaw naa ci am tuuti kontante ndaxte dama ne ah ku yaakaar ne yow boo fi nekkee presse day ànd ak yow da ngay nax sa bopp euh, ndax euh, Sénégal presse bi dem na fa toll foo xamante ni yaakaar naa ne ñun da nga ko war a sant yàlla bu baax a baax a baax ndax diversité opinion bi am ci média ya Sénégal c'est extraordinaire donc loolu yaakaar naa ni ku amul looy ragal wala looy tiit da nga ko war a encourager ndax loolu mooy yoon donc pour consolider sunu démocratie euh, wax ji li ma si gën a neex mooy fi Tafa daanelee léegi xam nga nee Euh, moom bu demee bay remettre en cause suñuy programme war na xoolaat boppam bu baax laaj lan moo ci responsabilité moom parce que c'est trop facile aussi toog rek naan wéy nit ñi li ñuy def baax lu baax lu baax mais xoolal yow est-ce que li nga waroon def en tant que chef de l'État président de la République est-ce que wala lii nga warloo ak presse bi def nga ko ba pare wàccoo na bu fekkee ne loolu xool nga ko ba ci biir xam na yow li nga def wàccoo nga loolu bu la neexee nga critiquer mais yow ba nga fi ñëwee ba tey ak espoir yi nit ñi amoon surtout suñu millier bii mais ba tey ñun gisuñu fi loo xamante nii war nañ ko mën a euh, rafetlu amul ça fait ñetti at mi ngi fi mais régime bi fi nekk lan mooy rapport am ak presse bi rapport yi ci lan la basé wu parce que bu lii Moustapha wax lu tax ma koy dëggal xam nga toog c'est vrai saa yu fi nit ñi dégloo rajo rek wala ñu xëy di liir ay journaux nan ko gërëmee journaliste mais bu leen waxoon condition yi ni nekk pour def reportage condition yi ñu nekk pour diffuser ay images condition yi ñu nekk pour dem di tàllal seen micro ci mbedd mi ñii di xëy di dem di uti xibaar ñëw di traiter information di ko génne bis bu ñu xamoon condition yooyu sénégalais yi saa yu ñu xëyee daan na presse bi gàccee parce que milieu bi doy métti na métti boo xamante ni et puis les gens avec les moyens du bord ils sa bat mais nguur gi bu yaakaaree ne moom chaque année li ñuy tuddee pompeusement aide à la presse ñu koy def 700 millions dégg naa sax léegi da koy yokk def ko 1 milliard. yaakaar ne loolu ngay sotti ci presse bi te sotti wuñ ko sax ci presse bi. wax ji wax ji mooy dafa am ci poche yu ñu koy dugal. loolu la ay poche lañ koy dugal. mooy poche patron de presse yi. parce que xaalis bi ñoom lañ koy distribuer ah. amul benn groupe de presse fii wala boog yu ci bari à la presse da koy dégg rek lañ ci am xamuñu xaalis bi fu muy jaar et c'est de l'argent c'est de l'argent du contribuable xaalisu contribuable li ci gën a métti nag te ñu jooy ko jooy ko fu ne mooy voilà de l'argent boo xamante ni dañ koy jox ay nit te kenn du ko audité xaalis bi kenn xamul nu muy demee. nan lay tëddee. day am ay commission ñuy ñëw di toog di xool naan wuy li nii mais bis bu arrêté génne dañuy joxe xaalis bi. ci joxin yaa ma neex rek. moo fi am. Mm-hmm. donc yow yaakaar na ni yaa ngi def xaalis. Mm-hmm. mais jàppale woo. ñu ngi ko soxla ñii ñii liggéey ci presse mm-hmm. te loolu war na tax aussi mu xoolaat boppam bu baax a baax maa ngi joxe xaalis mais amul benn évolution. te loolu yaakaar naa ni dinañ ci. dinañ ci dellusiwaat léegi kon feneen fu ñuy liggéey ci presse ñu ngi fay liggéeyee paas ñun passion rek la ñuy liggéeyee kon ñu ngi lay gërëm. Saliou Gueye euh, parce que aussi yor nguur yaakaar naa boo ko seetloo. opposant bu fi yéeg la part polémique mooy werante ba weerante ba moo la tax a yéeg boo yéegee itam boo moytuwul moo lay tax parce que du fi jóge mukk boo demee nag ba bëgg a arrêté loolu est-ce que dafa am manière bu ko mën a arrêté boo xamante ne wute na ak toog di wax ne na nit ñi noppi. jërëjëf Ousmane man bi ma dégloo président de la république euh, wax kàddoom yooyu ca ziyaara bi mu doon def Louga. li mu mujjee wax sax laa jàpp parce que bi mu ko waxee pare dana sëriñ bi maa ngi jéggalu parce que sax fii du waxukaay mais comme que dafa itteel askan bi dafa amal soxla peuple bi loolu moo tax ma wax ci ma ne mais président bi wax na ba pare yey na boppam ci biir wax parce que su fekkee ne yow da wax ne ne ñu noppi amuñu programme cest dire que donc mooy wax ñiy wax amul solo kasaw kasaw mais wax joo xam amul solo doo dem ba ci digg ziyaara di taxaw di ko fa wax mais soo paree nga ne wax ji dafa amul itte askan bi c'est-à-dire que donc dafa nekk matière à débattre te à juste raison sénégalais yi dañ ci war a joxe seeni xel ak seeni xalaat parce que aussi je crois nous sommes dans un état de droit mm-hmm. te je crois que état de droit li koy fondé mooy la liberté d'expression il est vrai que nag ñun suñu régime yi nga xamante ne moom la ñuy am depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui dafa nekk ay régime presque totalitaire yoo xamante ni hyper présidentialiste yoo xamante ne nii dañuy bëgg a jël concentrer lépp ci ñoom au point que ni nga xamante moom la ñu dominer exécutif bi ni ñuy dominer du moins euh, le pouvoir euh, le euh, le parlement. Mhm. ni ñuy dominer le système judiciaire. noonu lañ en même temps noonu la ñuy bëgg dominer aussi la presse loolu moo tax toujours rapport entre la presse indépendante privée ak aussi le pouvoir en place toujours dafay nekk ay relations conflictuelles. Mhm. mais loolu dinaa ci dinaa jël si waat sax bu wax benn historique tuuti. Mhm. bu fekkente ne dafa am ñoo xam ne dafa leen war a noppiloo ci débat bi je crois li ñu naan mbay sa wóomu tànk dafa war a commencer ci boppam ak ci ay collaborateur am parce que nag débat bi muy commencer moom moo ko njëkk yëkkati en 2012 dem France gën sur le perron de l'Élysée wax ne ni ma engagé woon ci sama campagne sama mandat dinaa ko wàññi ñu dem en 2013 mu daal di dellusiwaat encore ci conseil euh, euh, le groupe consultatif de Paris daal di waxaat encore na ne c'est un choix définitif je vais réduire mon mandat mu demaat encore toujours à Paris euh, kii euh, comment dirais-je benn rencontre NEPAD sur les infrastructures mm-hmm. mu waxaat loolu fekk ne y a une journaliste du nom de Karine Franck moo ko ci posé question moo ko ci posé question mu wax ko ne c'est une conviction personnelle mm-hmm. wante ce n'est pas moi ki fais les lois ba mu commencé wax nag c'est pas moi qui fais les boobu la wax ji nit ñi commencer di ci wax parce que première sortie yi mu wax yëpp dañ ne président dafay fësal li nga xamante ne engagement bi nga xam la jëloon ci campagne bi mhm. mais ba mu nag du man may def loi yi dinaa xool fu ma ko war a jaarale boobu la nit ñi commencé jóg te ñi njëkk réagir mooy maître Mame Adama Gueye mooy njëkk réagir daal ne ñun du ñu nangu benn reniement ni nga xamante ne moom lañ organiser woon ci le 23 juin toujours mën nañ mobilisation boobu en cas de rétractation discursive foofu la wax ji coow lañ ko commencé président bi mu dellusiwaatee fii ci euh, ci francophonie bi fësalaat na loolu parce que même bien avant sax daje woon na ay kàngam APR wax leen ne moom dina réduire mandat mu ñëwaat encore ci francophonie bi aussi daal di fësalaat loolu wax ne moom mandat bi dina ko réduire donc boobu léegi président bi moom moo ci topp di wax son conseil juridique Ismaïla Madior Fall dem benn séminaire Benno Bokk Yaakaar à Thiès 2015 dajeeg ñoom wax leen ne leen président bi dina procéder à des réformes institutionnelles problème mandat bi mi ngi ci te dinañ ko organiser sax parce que dafa jox woon na date ba ne mois de mai 2016 président bi aussi ba pare le même Ismaïla Madior Fall dellusiwaat encore daal di waxaat ne président bi loolu mi ngi wax ci populaire bu yàggul je crois 15 décembre bi passé mm-hmm. daal ne président bi dina def procéder à des réformes mais cette fois ci waxatul mais mais nee na ci premier trimestre bi donc gis nga déjà wax yi ñu ngi commencé di waroo te président bi dafa am na fu mu waxee woon aussi daal de moom ci premier trimestre ci premier semestre bi moom ci lay engagé ci lay engagé réforme correspond waaw au mois de mai mais boobu léegi moom mooy wax c'est vrai que nit ñi ngi ci doon wax mais xam nga wax ji kañ la commencé am doole dëgg bi nga xamante ne aussi moom dans son camp dafa am ñoo xam ne dañu jóg taxaw carrément daal ne président bi mandat de sept ans lay def Moustapha Cissé Lo Jean Paul Diaz maître El Hadj Omar Youm Mbaye Ndiaye le gars de Macky 2012 Moustapha Ndiaye mm-hmm. ñooñu ñoo taxaw fii wax loolu daan ne ñoom président bi kàddoom constitution bi moo ko ëpp doole donc le président doit faire sept ans mm-hmm. mais il faut aussi mu am une réaction du peuple des gens yi nga xamante ne ñoom président bi moo taxoon engagé wu ci campagne bi wax daal ne man juróomi at lay def mais il faut que maintenant que les gens débattent sur ça mm-hmm. mais fi débat bi gën a fësee te loolu même moo tax même premier ministre bi xaw na tamit mertant yi ba ne non à la république des professeurs. mooy bi Ismaïla Madior Fall demee benn émission remue ménage bu Alassane Samba Diop. taxaw wax ne président bi conseil mën na joxe avis te avis bu mën a joxe daf koy lié. foofu nag la ay kàngam yoo xam ne aussi ñoom li moom li mu jàng moom lañu jàng taxaw weddi ko ci loolu. nekko loolu c'est un avis ça ne lie pas président mais débat intellectuel jóg. intellectuels yi nga xam ne yëpp ñoom aussi seen xel màcc na ci loolu aussi mais nit ñi débattre ci et moi je dis que ça c'est pas un débat inutile c'est un débat fertile c'est un débat utile parce que dara gënul utile di wax ci loo xamante ni sa njariñu njariñu réew la parce que boo gisee situation d'incertitude yi lu tax baaxul dafay indi instabilité parce que bu ñu toogee ba tey heure bi xamuñu ban date la ñuy organiser élection présidentielle parce que li ci lëndam aussi dafa bëri te li ñu naan ku aj da bañ ku sentu mm-hmm. président actuellement loolu moo ko dal wax ji daf ko wax ba pare te wax ji daf koy commencer sonal ba au point que ku ci mënu wax aussi mm-hmm. moom il se met hors de ses premier ministre aussi a dit la même chose en disant non à la à la de professeur mm-hmm. mais professeur yooyu moom dafa waroon njëkk a commencé ci seen professeur boo nga xamante moom moo junj wax ji parce que dafa wax nit ñi tontu ko aussi vraiment avec des arguments intellectuels on peut partager on peut partager mais ça c' la liberté d' expression te xam nga gis nga dëkk mhm. lu koy lal mooy ça la liberté d' expression la liberté d' opinion mhm. am na solo am solo nga xamante ni ba tey fi mu nekk nii soo demoon États-Unis ñoom seen premier amendement loolu dañ ko c'est-à-dire c'est dévo boo gisee le président Thomas Jefferson bañ koy laaj mhm. mu ne moom su fekkonte ne tey dañ koo laajoon ne ko entre gouvernement boo xamante ni amul presse ak presse boo xam amul gouvernement mu ne man de presse bu amul gouvernement moom laay jël saa à dire pour wax ne presse solo bi mu am ci moom ci réew mi moo ëpp solo bi nga xam ne moom la gouvernement mais nag malheureusement ñun suñu gouvernement yi dañu dem ba nga xamante ne tey système institutionnel bi nga xam ne moo fi am muy presque le jacobinisme moo fi am dañuy bëgg a jël ñëpp mettre leen au pas te loolu nag dafa nekk histoire boo xamante ni Sénégal depuis xeexu Senghor ak Mamadou Dia ba tey jii. loolu je crois xeex boobu mosuñu cee jóg. te nag malheureusement tey. soo gisee président bi j'ai l'impression que ci côté boobu amul rupture parce que boo gisee lu tax ma ne la amul amul amul rupture. Senghor ni mu ni mu amee woon benn emprise ci médias yi def de sorte que à l'époque presque kenn du wax. ba nga xamante ne même le journal. fii muy muy ko le quotidien national di di di la soleil mm-hmm. ñoom dañu demoon ba dañu ne soleil même ki ko xamee ne moom koy moo koy jiite dafa war a non seulement refléter la pensée du parti mais dafa même le rédacteur en chef doit être même un membre du parti boo gisee à l'époque Bara Diouf bi ñu koy teg foofu non seulement c'était le directeur politique mais c'était en même temps rédacteur en chef mm-hmm. te Bara il a été pendant dix-huit ans au cœur de la propagande du régime socialiste mm-hmm. te ñoom loolu dañ ko wéyal mm-hmm. dañ ko wéyal parce que boo gisee régime bu ñëw ñi nga xamante ne moom nga jël teg leen ci média détail en même temps dañuy nekk ay militants affirmés du du du parti au du parti au pouvoir mais Senghor il l'a fait Abdou bi mu ñëwee aussi Abdou à a fait a fait la même chose boo xoolee à l'époque toujours ñi nga xamante ne ñooy gérer RTS di di di di gérer Soleil presque c'est des militants confirmés du du du parti socialiste Abdoulaye bi mu ñëwee moom aussi il a reproduit le même système man je pense que tey Macky bu fekkee ne dafa ñëw annoncé ay rupture je crois rupture bi xam nga ci lu mu waroon njëkk a commencé d' mooy li nga xamante ne média d' état la. te ñun ñëpp ñu moom ko. parce que ça n' appartient pas à l'APR ça n' appartient pas à la mouvance Benno Bokk Yaakaar sa appartient à l' ensemble du peuple sénégalais. donc je crois que tey moom su ñëwoon. réforme yi mu waroon njëkk def rupture yi mu waroon njëkk amorcé moo di ñi nga xamante ne tey ñoom lañuy jël di leen teg au euh, à la tête de ces médias d'état ñu bañ a am benn coloration politique wala même suñu amee coloration politique aussi du loo xamante ni dafay nekk lu fës ñoo xam ne c'est membre membres du parti mais tey regarde le même système bi nga xamante moomoom du temps de Senghor quand Bara était en même temps membre du parti socialiste ba pare diriger Soleil tey boo xoolee loolu moo am au sein de la RTS Racine Talla qui est le directeur général de la RTS mais qu'est-ce seulement cadre APR membre membre membre confirmé de l'APR et en même temps il est il est maire d'une collectivité locale mais ça il y a déjà rupture d'égalité parce que ki nga xamante ne tey moo jiite moo jiite média boobu quel est le seul journaliste de la RTS bu mën a oser dem gox ba nga xam ne fa la nekk lépp lu fa am ci ay mbóot musulli ko ba pare war nañoo def un reportage di ko indi def nga mais kooku xa déjà autocensure ngi noonu. conflit d'intérêt loolu waaw mu ngi noonu c'est-à-dire voilà les problèmes je crois que président bi tey. Hmm. ci loolu la waroon na njëkkee. parce que ñun li nga xamante ne moomoon di temps di régime de Senghor Senghor def ko fi ba jógee fi nit ñi di ko xeex Abdou Diouf ñëw def ko fi nit ñi di ko xeex ba mu jógee fi. Abdoulaye Wade di ko def nit ñi di ko xeex ba mu jógee fi je crois que tey dafa waroon am jàngat ci ñooñu li nga xam ne moom lañ doon gérer seen relation avec le pouvoir mm-hmm. parce que ils ont toujours voulu domestiquer la presse indépendante mm-hmm. mais nit ñi aussi dañu mës a bañ loolu parce que presse moom mm-hmm. ñu ñu bëgg ko ñu bañ ko et je crois que Abdoulaye Wade sax loolu mooy ñu mësoon njëkk nekk ne bi ni ñu accompagner le mouvement démocratique ba moom moom egsi ci pouvoir bi bu ñu ñëwee aussi moom dañuy ànd moom ci loolu alors que presse bi moom fa mu nekkoon ña nga fa ñun on a une mission citoyenne boo xam ne. chaque fois moom la ñuy. la voix des sans voix kooku nag moom. Mm. c' est valable pour l' ensemble des président bi nag je crois que il se trompe d' époque. parce que bu fekkente ne moom le passé mënu ko servir vraiment de leçon. de leçon j'ai l'impression que aujourd'hui moom war na xoolaat boppam bu baax. Serigne Saliou Gueye. waaw euh, Abdourahmane Sow du M23. parce que tey boo gisee ni président di réagir à chaque fois da ngay gis ne moom mu ngi déglu Sénégalais yi bu waxee dina wax ci wax sa xalaat bu waxee dina wax ci débat yu fi dul jóge mais est-ce que noonu muy dégloo Sénégal yi mu ngi leen di dégg bu baax ci kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati ak waxin gi ñuy wax nga xam ne am na lu bëri lu mu ci mënoon jàngal. Euh, jërëjëf Ousmane ñu ngi leen di gërëm ci invitation bi euh, di nuyu seen téléspectateurs yi nekk ci àdduna bi yëpp di nuyu suñu naataangoo yi fi nekk may préciser rek COS M23. Mhm. pour euh, enlever la confusion bi am entre. ñaari M23 bi ñu ne dafa arrimé ci nguur gi. Mhm. ak ñi nga xam ne dañoo fippu. Euh, ne M23 askan wee ko moom nguur du ko yor. Mhm. donc c' la commission orientation et stratégie M23. Mhm. Euh, je pense que en tout cas le fond de ma pensée. Mhm. ñi ma njëkk jël parole wax nañ ko ba pare. et puis na ma Sénégalais yi baal man sax damay kontaan ci situation bi. damay kontaan euh, que ñun ñu mën a nekk en mesure ñu natt le président de la république. ca fa mu jëm parce que tamit dafa am un travail d' anticipation par rapport ak li war a ñëw. ñëw nañ fi ñëwati fi. ñun nous sommes rassurés par rapport ak lañu gëmoon ne Macky Sall moom lay def euh, am na ay critères ay jikko yu bëri Moustapha lim ne bu ñu ko doon natt ci Macky Sall ëppale ko Sénégalais wala ci ñu ko gën a néew lay bokk. loolu sax mën nañ ko ko jéggal nit gën na fee néew ay critères gën na fee néew ay ay ay ay qualité mais mu am benn benn boo xamante ni day muur loolu yëpp muy muy jikko ji rafet ji muy dëggu bi dëggu bi. ak set dimension patriotique xam nga tey jii euh, taxaw di ŋàññi presse bi comme ni ñu ko waxee mais presse bi amul programme Sénégal xam nañ ko mooy presse bi nga xamante ni on tire du trésor public di Sénégal yëpp di ñàq di ko di ko jox di ko cotiser ñu leen koy fay muy RTS comme illa di dit di ko jiite nekk un maire d'une collectivité nekk nekk militant APR c'est que le président de la République bu ñu dellusee ci li ko indi ci nguur gi comme ni nga ko waxee sànq ce n'était pas un choix il y une dynamique boo xam ne dafa ne woon plus of Wade bi Macky Sall di woo Karim Wade euh, euh, assemblée nationale man bokkoon naa ci ñi gëmoon ne que du woon conviction moo taxoon mu woo ko xëy na peut-être amoon na yeneen intention et loolu ci lan la ñuy ramener mooy situation dab na ko ba mu taxaw jàkkaarloog Sénégalais yi war a mën a nekk président Benno Bokk Benno Bokk Yaakaar Benno Siggil Sénégal éclaté situation boo xam ne mënuñ ci dellu ginnaaw parce que boo leen fàttalikoo man dama gëmoon ni que bu doon dëgg woon na ci loolu mu defoon ci Karim du dem Touba seet sëñ Baara na ko waxal président Ablaye Wade damaa jur na ma baal foofu ça faussé laa doon y'avait pas l'intention en tout cas de faire prévaloir cette bonne gouvernance wala nga tey nga laaj Karim fan la dugal alalu askan bi dafa demoon di jéggalu yàlla moo namoon situation di ñëw ba li am ñun ñu yaakaar ni presque bi ñu koy wax euh, ci ci origine am sax par rapport à l'étymologie média da ngay nekk le lien entre ñaari ñaari en tout cas sphère muy muy en tout cas le pouvoir ñi yor suñu askan et suñu alal ak ñun euh, l'opinion les citoyens euh, mu ñu bu ñu duggee ci dimension média et société delluwaat ci M23 bi bu muy am par exemple mais bu ñu presse avisé wul woon par rapport au danger parce que la majorité de la population n'avait pas compris les enjeux et il ne faut jamais oublier sinon il faut oser le dire un pro projet de loi selon la constitution président de la république am na droit dugal ko assemblée nationale légalement et légitimement kan moo war a ne déet sont les députés mais la presse a aidé une certaine opinion certains leaders à nous aviser par rapport à la dangerosité bi bi loi bi amoon askan wi génn xeex moom mu nga fa ma Macky Sall leaders yi mu àndal yëpp tey ñu ngi foon journalistes yi mu jël yëpp du ma ne daf leen corrompre mais caporaliser leen tey jii ñu xaw a sax am nañu ñu tax askan wi am na ñuy gisee presse Euh, parce que ñu si bëri ñu ko wër ay journalistes lañ c'est des prescripteurs d'opinion yor ay organes yoo xamante ni dina am sax benn genre dictat ni mu koy waxee xaalis bu mu ñëwee lettre à la presse mais ci poche seen poche lay dem et tout ça dañ koy liggéey mu caporaliser ñun ñoo ñëpp ñëpp ñoo fa nekkandoo woon di xeex continue ko dem obélisque ñu koy fàttali que ne que mandat bi muy mu ñuy contesté par principe ñun dañu ne le conseil constitutionnel organe la boo xam ne en tout cas juridiction la boo xam ne wax dégg yàlla jox nañ ko cëram mais ñun ñëpp a taxawoon jour bi euh, Fodé Ndiaye di dee obélisque. Mhm. Macky Sall mi ngi foofu. on lutté contre le conseil con la décision du conseil constitutionnel. mu waroon valider le troisième mandat de Abdoulaye Wade ñun ñëpp mu taxaw ànd ak ñoom ñu ngi ciy xiir ñuy xeex ba ay sénégalais. policier la mais bu simmee tenue citoyen sénégalais la. emblème de la république moo ko taxoon jug ñuy défendre sénégalais yi ci li neew ay caprice su Ablaye Wade ñun ay sénégalais lañ ni moom ñu bokkuñu gis-gis ñu braqué ñu ñuy dóorante ba mu dee jour boobu Macky Sall mi ngi faas heure bii Walf mi ngi émettre ñu naan am na policier bu dee mu simmi xaftaanam tàng jër commencé ñaq sol souverain am jàkkaarloo grand écran ñu naan policier bi dee na à côté keroog lu ñu dajul lañ koo amul waa àdduna di dox ba sa bopp commencé neex wala muy tàng nga jékki-jékki naan cette décision est suspendue au en tout cas ci avis consultatif conseil constitutionnel ñun dañu lay fàttali ne la loolu yëpp safuñu xam nga lan moo ñu saf mooy li ma lay wax cette valeur là dimension bi ñu soxla yàgg nañ ko wax les problématiques économiques et tout ça ça se ça se règle dans le temps ça viendra bañ na ko ba programme am c'est euh, pour un horizon de vingt ans trente ans mm-hmm. li tax ñu doon xeex Ablaye Wade keroog dañu ma ko laaj ci benn plateau ne na aujourd'hui vous avez regretté wallaay rëccu ñu ci dara dañ koo gëmoon ne boobu askan wi laajoon nañu taxaw xeex bu metti parce que gëmatuñu woon ni wax di yore woon réew mi donte def na fa liggéey boo xamante ne tey ji matérialisé wu na Macky ci digg rek la nekk aide à la presse bi ngay wax nii pour ñaata lay am bénéfice plus de vingt huit milliards ñaata lañu leen di jox en terme de libéralité deux milliards de francs yoo xamante ni dañ koy politiquer waaw mais jamono day dox ngeen foog ne ni ñuy téye nit ñi di leen war leen defal reddition des comptes defuñu reddition des comptes bu fi Macky Sall jógee ak jàmm ak salaam ñooñu yor alal askan bi duñu jaar à leur tour mais xaalis boobu mënoon nañ xool nan nañ koy exploité jàppale ko presse bi les conditions de travail ñun ñëpp xam nañ ko sont des conditions très difficiles effectivement ça relève du miracle que ngeen mën a di produire di publier dafa metti on en est très conscient en tout cas type de yi nga xamante ne ñoo nekkoon ak ñun di dénoncer certaines pratiques yi. tey jii ñoom la Macky Sall di utiliser Macky Sall a une stratégie. c' un fin politique wala c' est un politicien. du presse bi rek presse bi li muy dénoncer parce que sama benn mag dafa doon wax euh, mu ne reket reyul jaan mais reylu na jaan. presse bi reyluwul président reyul président mais reylu na président parce que dimension démocratie par rapport ak fondement yi la presse lopinion le pouvoir et l'opposition mais ñun boo leen ñu joxul information yi permettre ñu sanctionner duñu duñu duñu du ñu xam ban comportement la ñuy am pour euh, en tout cas mën a xam euh, ni ñuy taxawaay ak ñoom mm-hmm. donc buñ delloo sax ci histoire presse ak pouvoir bu mm-hmm. ko démissionné lo mais fondamentalement la presse mm-hmm. Bob Woodward ak Carl euh, Bernstein ñoo def seen enquête dëgër ci ñu am justice bu libre bu xam sax mooy njëriñam ci réew mi le procureur et le juge d'instruction mais ñu am congrès boo xam ne comme suñu assemblée nationale bi am ay leader ay vice président yoo xamante ne dañuy taxaw xas presse bi saaga leen mais ci man dëkk la ñu ne ci loo xamante ni yow reylu nga sax presque ay sénégalais Moustapha Niass gàddu ay xeeram euh, Macky Sall taxaw foofu di ngeen baal ma ci wax ñi c'est président de la république mais dimension yooyu lañu ñu dépassé Macky Sall doit nous rendre compte par rapport à son engagement nous allons porter le combat bu ko neexee mu dal ci presse bi bu ko neexee mu téye Euh, ay edam moom yorul wërsëgu presse bi parce que presse dafa commencé liggéey ni mu ko waxee dëgg la. depuis les années 63 ba léegi euh, Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi le ministre de l' information Daouda Sow en son temps jaar na fi. je pense bi ñuy njëkk def le code de de la presse association des journalistes sénégalais fekkewu ko. yàgg nañ notre presse même bu dee am na une certaine dimension de liberté mais Sénégal dafa évoluer ñun calculer wuñ loolu xam nga lan lañ bëgg. mu publier mu wax ñu kañ lay def euh, ce référendum là. ak bu ñu ci jugee ñu retenir mu am calendrier républicain pour ñu dem élection bu ñu ko deful ni ñu doon defandoo ak ñoom ci kattanu yàlla bu ñu yàlla mayee bakkan ak jàmm dañ koy defaat sans complexe contre ñoom parce que loolu mooy dynamique bi nañu jox date pour euh, référendum bi bu ñuy xeex nañ moom bu mu rëcc dinañ ko attaquer pour parjure dinañ ko traduire à la haute cour de de de justice pour haute trahison parce que loolu mooy reniement bi moom mooy parjure Abdourahmane euh, Euh, Moustapha Diop euh, ci fan woo nga xamante ne tey problème mu date la problème mu calendrier bu leer ci boppu nit ñi la mën na nekk stratégie politique waaye au delà de la stratégie opinion bi nga xamante ne ñoom ñoo mën a àtte parce que ñun dañu poser débat. Mm-hmm. opinion boobu ñoom ñoo soxla date yi leer. parce que booy seet euh, après 62 la crise 63 or def référendum. Mm-hmm. boobu continué ba les années 70 80 pour ñu modifier ko pour premier ministre. Mm-hmm. ak mandat bi ñu ñëw 2000 war jël 2001 mu def moom mu amoon yéene bi wax comme boobu ba léegi itam nee na mu ngi ci tànk yi mais mel na ni euh, ni muy doxee temps am ak temps opinion bi dafa bokkatul. ci foofu na nga jàpp ne kon ku mere ku jottali di presse bi war ngaa mere ki nga xamante ne moom moo wax te ñuy wax léeg-léeg ci kaam la ñu jógee. moom la Serigne Saliou doon wax sànq. mais man dama naan il est heureux d'ailleurs suñu réew mi parce que Sénégal mën nañ mën nañ ko jaayee lu ne ba mu des nag ay borom xam-xam. ay mi ngi fi su fekkee ne question yu mel noonu comme euh, conseiller ou président. wax si position xam na droit da koy jàng di ko jàngale et tout mais ñi ko doon ñi ko ñi mu jàngandoo wala ñi ko doon jàngal sax nekk ci réew mi mais il est heureux que débat boobu am ñuy waxante ma je di dis même Sénégal dañu war a kontaan am loolu parce que am na réew yoo xam ne Ousmane li leen jural coow yëpp mooy dañu dem ba seen classe politique seen ay intellectuel waxanteetuñ ñu def ñu defante waxanteetuñ dañuy defante mhm. Sénégal na ñu ngi waxante te waxante bi li ci li ci neex mooy ne ba léegi dënd jógul man boog débat yi may seetaan à part les politiques intellect borom xam-xam yi yi ciy waxtaan seen dënd jógul ku ci nekk da ngay wax sa argument keneen ñëw wax argument am mais loolu moom mooy mooy rendre riche le débat démocratique tey normalement les étudiants de l'université de Dakar ñiy jàng droit constitutionnel dañu war a bég ci di gis débat yu mel noonu ñu koy def ci Sénégal man dama damay bari lu may seetaan ay ay ay ay émission politique muy muy ci réew mu nekk damay jàpp teel di seetaan mais amul réew mu mel ne France par exemple amul dara lu président di wax rek te duñ ci débat hmm. yenn saa yi débat bi jël ay fan nga déglu kenn mu wax ci argument yoo xam da nga naan yi kii moom li mu wax téere la keneen ñëw wax la tout à fait le contre ak argument mais loolu mooy rendre riche. Hmm. et au président est national c'est question de sécurité de. mais débat bii ñu hmm. nekk nii muy débat wu mandat wu président man fi ma d'accord rek président mooy ne bi mu ne coow jaru ko mais coow li jaru ko moom rek moo ko doon arrêté. xam nga lu mi ngi lim léegi historique bi fi ñu jaar yépp mais mënoon nañ régler le problème déjà depuis trois ans def comme ni ko Abdoulaye Wade defee. nekk président en 2000 en 2001 mu woote constitution bu bees nit ñi dem voté ñu toog xaar Macky bi soog a fal su fekkoon ne def na loolu constitution bii mu ñuy dig ne nañ ko voté ci 2016. ñi ko bind ñu ngi fi woon depuis 2001 depuis depuis su fekkoon ne réfléchir nañ ci moment boobu. bind ko ñu dem voté ko référendum ñu réglé loolu dem toog kenn dootu wax waxu mandat ci réew mi mieux que ça defuñu ko ba 2014 2015 2015 muy def son adresse à la nation pour le nouvel an mais bi mu annoncé réforme yi annoncé ne dinañ dem référendum su waxoon ne parce que nguur euh, nag prévoir mooy gouverner su waxoon ne bu ñu tolloo ci date sàngam Sénégalais yi woo naa leen convoqué naa le collège électoral pour ñu ñëw dem élection mais lii wag lii la leen laaj lii ku nekk am nga ci tontu boo ci mais je crois que débat bi du am. mais li débat mooy wax ne dinañ dem dinañ dem élection dinañ dem référendum ba pare kenn xamul kañ la. est-ce que mën nañ nangu Sénégal réew moo xam ne maa ngi koy wax sànq ne ñu ngi voté depuis je ne sais 1800 quand. réew moo xam ne Senghor ak Mamadou Dia jaar bi ni mu ko. bëri am fi réew moomu ñu fal président pour un mandat de ñu toog ba 2016 xamuñu dañuy voté 2017 dañuy voté 2019 mais loolu ku ne jarul débat man xaw ma lan lañ war a débat ci réew mi. démocratie bu bel tel ne Sénégal. Mm-hmm. réew yi siré ci àdduna bi yëpp xam nañ kan lañ voté. Mm-hmm. bari gi dem États-Unis Barack Obama dañu wax ne son dernier dis euh, discours xaw ma discours à la nation. ni ko tuddee mm-hmm. def na ko. mais li ko tax mooy parce que xam nañ ne année sa euh, buñ tolloo ci période sangam ci. deux mille deux mille seize dinañ voté. tey jii président Macky Sall mënul wax tey moom xam na ko moom. mais amul benn Sénégalais tey à part moom xëy na ak ñu ko wër bula mën a wax ne président geste euh, acte bi mu posé tey wala boog première pierre bi mu posé xëy na du ko àggale wala ku koy remplir moo ko àggale parce que xamuñu kañ lay yem. kañ tey jii ñu ko wër mi ngi koy wax sànq. Mhm. ñu ngi nekk ci réew moo xam ne ku nekk yaa ngi waaj. élection diw dina nekk candidat diw du nekk candidat mhm. mais bala ñu réglé loolu nañu réglé kañ la ñuy voté. tax na ñooñu sax ñu ngi joué sur le temps ñoom itam ñemeeguñ prononcé wu. kooku exemple ma la ci jox. souvent dañuy wax maa ngi koy lire ci tey suba ci benn journal ñu ne eh, ku mel ne Khalifa Sall par exemple mhm. il joue avec le temps. Mhm. parce que tey su fekkoon ne dafa wax tey ne moom dina nekk candidat élection 2017. ñu dem 2019 ñu dem 2019 fan la jëm. usure ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. donc il faudrait que la classe politique am courage abadol man wax naa ko fii benn jour diine jamono. te man loolu laa gëm dama gëm ne quelles que soient les nañ ko waxtaane moo gën tey jii mandat président classe politique ku nekk am nga ci ay position la société civile ku nekk am nga ci ay position sénégalais am nañ seen position mais lan moo tax moom président Macky Sall mënul woon convoquer la classe politique ñi jiite la classe politique kenn mu recevoir la au palais ñu ñëw toog mu ne leen diw ak lii laa bëgg def ñu jox ko seen ay position Abdoulaye Wade def na ko fii convoqué na fi Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng Amath Dansokho ñu dem pale xuloo sax. xuloo sax bu métti. mais au moins waxtaan nañu. mais man je je réew mu mel ne Sénégal depuis Macky Sall nekk au pouvoir man toogaguma gis un leader de l'opposition bu dem toog au palais waxtaan ak président. lu dul dafa dem suuf ñuy transhumé. Mhm. suuf ñuy transhumé pourtant une démocratie majeure dafa normal le président di recevoir son opposition boo demee États-Unis am na fa. Mhm. soo demee France bi fa attentat yi amee Hollande tout la classe politique la recevoir. dem ba ci Marine Le Pen bi nga xam ne moo gën a doy ci France Hollande daf ko recevoir. waxtaan ak discours raciste bu doy waar sax boo. xam ne loolu mooy démocratie. mais suñu démocratie bi tey boo gisee nit ñi braqué wu. nga gis ñu mel ne euh, le PDS par exemple. Mm-hmm. chaque fois ku mel ne Omar Sarr kàddu yu muy yëkkati nga rafetlu nga bañ ko rafetlu yëkkati na ko mais su fekkoon ne tey ji am na moment yoo xam ne le président par exemple xam wax statut de l' opposition mais tey ji l' opposition am nañu droit le président recevoir leen ñu waxtaane réew bi am na ay question xam ne mën nañ ci am ay consensus tey mandat wu président lan moo ñu xamal ñun ne mënu woon am consensus classe politique bi yëpp gëm ne mën nañ dem ba 2019 lan moo ñu wax ne mënuñu woon am consensus su classe politique yëpp gëm ne mën nañ dem assemblée wàññi ko yemale ko 2017 ñu dem élection. te li mu waaj loolu moo ci ëpp solo. référendum boo ci gis boo ci amee large consensus parce que mënoo am unanimité mais mhm. bi li muy am am li muy fort fort. Mhm. peuple bi moo nekk ci kawam. moo nekk ci kawam moo li waxtaanee rek am mais malheureusement dans ce pays. débat yi heureusement ñu ngi débat. Mhm. mais waxtaanuñu entre surtout l' opposition ak boo waxee ñu ne la. euh, l'Assemblée nationale et l'espace de de de, de, dialogue. de dialogue par excellence. Mm -hmm. mais Assemblée dialoguñ. dialoguñ la preuve dañu xeex ba daggante ay chemise. Mhm. bu yàggul Moustapha Diop. Aliou euh, parce que yor réew nag boo dégloo palateau bi nga xam ne kon ñaari mbir moo ci nekk fexeel ba moytu ay grand échec parce que lépp mënut a ànd baaxandoo. mais na nga fexe itam bi lépp bañ a ànd euh, bonandoo. Mm-hmm. ci fan woowu nag alerte bi da cee am solo te boo ko arrêté itam. Mm-hmm. mën na am du la bett wala mu bett askan wi nga ñoo moom réew mi. Mm-hmm. waaw xam nga euh, xëy na sax mi lu si ne xam nga man euh, c'est vrai que nit ñi ñu ngi débattre di wax ci wàllu mandat présidentiel. mais man li ma si jàpp ñaari mbir la bu ma dégloo Sow léegi ni mu waxee. Abdourahmane Sow. man duma constitutionnaliste kon mooy juriste man voilà xëy na ku ci nekk en tout cas xam naa ne ku ci nekk daal li ngay wax am na foo ko teg am na foo ko teg bu baax a baax mais xam na Sénégal euh, ku yeewuwul bi fi Ablaye Wade nekkee ak li fi am ak fi mu mujj ku ci yeewuwul ku ci jëleewul leçon man xaw ma kon ban genre homme politique na gis nga man xëy na duma politicien bokkuma ci terrain politique mais xam naa ne daal xëy na bu ko nit ñi doon xelal xelal bu baax dañ naan ko gor ca wax ja te xam nga nag euh, respecter kàddu dafa am solo surtout ci jamono yii ñu toll xam nga imagine ñu naan nit dafa wax waxeet wax waxeet am na fi ñoo xamante nii bu doon démb duñ waxat duñ fi wax mukk maa waxoon waxeet mais wax maa waxoon waxeet nga nekk koo xamante ni tu es président de la république xam nga loolu dafa xaw a ñaaw te bu nu xoolee xam ne xëy na am na luy ñuul ci soow bi comme nu ko sunu euh, Serigne Saliou waxee léegi léegi xëy na am na fu lu bëgg a jëmale xamuñu fan la mais ak nu mu mën a demee ak ñi ko mën a wër ak nu mu mën xëy na waa ji bi ñu koy door a fal président Macky xëy na amoon na une bonne intention te sëñ Saliou rappelé na ko léegi léegi mm-hmm. bu ñu xoolee ay discours am yu njëkk ak yu xaw a mujj yi xam ne am na daal foo xam ne mi ngi xaw a sooxe donc xëy na am na luy ñuul ci soow mhm. te bu fekkoon ne dañ koy xelal xelal bu baax nag mooy monsieur le président yaa ko waxoon def ko lu la ci fekk muy noonu xëy na am nga bilan boo defendre défendre ko boo amul bilan sénégalais yi ñooy décider mhm. parce que nag nit ñi bu ñu xeeb sénégalais yi bu ñu xeeb les populations gis nga les hommes politiques moomuñu réew mi gis nga Sénégal ñun ñoo ko moom ki nekk mbaddaxun nekk ginnaaw fongale mi Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom du ku nekk APR du ku nekk PDS du ku nekk PS du ku nekk ps de jant bi Sénégal ñun ñoo ko moom te yaakaar naa ne ñuy voté te loolu notre histoire politique nous l'a montré ñuy voté ñu ngi seen kër toog ah aussi pour la plupart et c'est eux qui décident donc te xëy na ñooñu am na ñoo xam ne ñu la koy xoolee am na parce que am na nit boo nekkee njiitu réew xam nga njiitu réew dafa diis nekk président de la république dëkk bu toll ne Sénégal treize millions d'âmes plus de quarante six xaw ma quarante sept pour cent fal la euh, soixante soixante sept pour cent. Mm-hmm. soixante cinq pour cent xam nga loolu du du du lu ndaw. Mm-hmm. alors ñooñu yëpp dañ am ci yow confiance xëy na am na loo leen wax ba ñu jàpp ko mm-hmm. ak nu mu mën a demee vous êtes devenu le président de la république de tout un pays du Sénégal ñu nag boo jëlee kàddu. ba ñu am fun la teg yaakaar naa ni ak nu mu mën a demee mhm. contingence politique ak tout nu mu mën a demee waroo changer sa kàddu parce que nag xëy na bis boo ko changé mhm. am na ful lay xaar mhm. te loolu yaakaar naa ni du nekk loo xamante ni lu gën ci moom la en tout cas débat bi moom ala kulli alin encore une fois day continuer di am tant que joxuñu nu ay date yu leer nañ mhm. ba nit ñu xam calendrier électoral bi lii la mhm. nit ñi moom kenn munu tee seen jëmmiñ dinañ wax te dinañ laaj kañ la ñuy dem élection mhm. est-ce que président Macky Sall lu mu waxoon dina ko def waaw wala déet débat yi moom alaakulli leen day continuer te yoolu yaakaar naa ne suñu démocratie xëy na mën nañu ko permettre parce que débat yàgg na fi du tey te xam naa ni du suba la fiy jóge nit ñi joxe sa xalaat allah Serigne Saliou Gueye parce que ci boobu itam nee na opposition bi sax war nañoo noppi parce que moom itam euh, ni kaam di waxee ba susciter ay débat comme ni nga wax action bu nekk day laajaat réaction réaction biy jóge ci opposition bi aussi ñu gis ne sax moom am na méthode boo xamante ni itam mu ngi fi ci stratégie politique am la bokk gis nañu nit ñi ñu ngi wut pièce de rechange ci ñoom te pièce bu mu jëlee fale peut-être am na lu mu wàññi ci ñële parce que itam période régulière yoo xamante ne mu ngi koy jël ci ay intervalle yu ci nekk di am presque loo xamante dina ko xam ci stratégie ñële doxalin boobu aussi nga xam ne yaa ngi ko doon wax ci rupture parce que transhumance bokkoon na ci li mu gënoon bannir ne sax ku ñëw ci ginnaaw ngay taxaw waaye gis nañ ne réalité du pouvoir mel na ni dab na ko ba tey am na ci beneen taxaw wala beneen gisin ah, boo xoolee Ousmane xam nga transhumance ci réew mi moom dafa am une longue mhm. te boo gisee ñi nga xamante ne dañ koo jëfee li mujjul nekk loo xamante ni lu leen lu leen gën lay c'est-à-dire ci lu gën ci ñoom ci loolu la ci ci lay ci lay ci lay mujj. soo jëlee jamonoy Senghor même su fekkoon ne temps yi sax Senghor bon l'ouverture démocratique ay c'est vers les années mille neuf cent mille neuf cent soixante-quatorze mais déjà soixante-quatorze bi mu amee rek ouverture démocratique boobu débauchage yi commencé na. ci boobu nga xam ne même le PDS n'a pas encore fait son congrès de 1976 bi mu bi mu def Kaolack déjà foofu rek ma ne la débauchage yi commencé woon na parce que en 1975 ku ñuy wax Mateen Fall mais Babacar Ba daf ko débauché te kooku déjà ci biir PDS la nekkoon journaliste boobu ñuy wax la dafa mam Mame Less Dia xam nga temps yooyu mi ngi woon soleil bañ nañ ko ba moom à l'époque moom la ñu délégué woon spécialement pour mu dem Kaolack def benn campagne de déstabilisation de PDS déjà moom mi ngi doon wax ne PDS jeunesse croissance et décadence alors que le PDS naa même pas encore tenu son congrès parce que à l'époque aussi la logique la logique c'était quoi faire le tout pour mën a déstabiliser PDS parce que PDS aussi dafa ñëw indaale doole bi mu indaale moo doon lan mm-hmm. mooy bi mu ñëwee dafa am benn journal bu ñu doon wax le démocrate mm-hmm. boobu bi mu ñëwee commencé indi ay jiixi jaaxa parce que dafa ñëw déjà ci USB euh, Union Sénégalaise de Banque mu njëkk def benn article boo xam ne ni ñu ne Union Sénégalaise de Banque dafa am benn ay ngandam trou de plusieurs milliards à l'époque même celui euh, je crois c'était un certain Amadou Sow qui était à l'époque le directeur il n'avait pas complètement démenti parce que waxoon na ñoom xamul ampleur bi sax nan la toll mm-hmm. dans un premier temps dafa njëkk a weddi wax ji ba pare daal dañoo xamatuñu ampleur trou bi la mhm. donc déjà moom mi ngi doon dëgg dëggal li nga xamante ne moom la journal bi wax mhm. journal bi ñëw di am tirage bu mag te pourtant Senghor en 1973 ci la ñu indi les nouvelles les nouvelles imprimeries du Sénégal Nice mhm. ci lañ créé société sénégalaise de publicité et de presse et de publicité boobu nga xamante ne ba pare en même temps l'association nationale des journalistes du Sénégal ñu jël un membre du parti socialiste le doyen Matar Kébé moom moom moom moo ko jiite woon la communication presque 73 boobu dañu def le tout ba nga xamante ne presse privé bi doon commencé di juddu. dootuñu am fenn fu ñu parce que ñoo ñooy contrôler publicité yi. Mhm. ñoom ñooy contrôler imprimerie bi et en même temps aussi association journaliste yi ñoom ñoo ko jiite. Mhm. parce que lu jiitu loolu dafa amoon benn journal bu ñu tuddee woon lettre fermée le feu Abdourahmane Cissé moo ko jitee woon. Mhm. mais moom aussi ba mu commencé sonal pouvoir bi parce que bu loolu bimensuel la pouvoir bi dañuy xëy xëy rek daal di interdire le ministre de l' intérieur de l' époque ak le ministre de de la de de l' information ñu interdire journal bi journal bi mën naa wax ne 3 mois 4 mois 4 mois la def. léegi nag ñoom bi ñuy indee système boobu ne dinañ def lu tout ba nga xamante ne tey dinañ contrôler presse bi ba kenn du mais Abdoulaye bi mu ñëwee indi journal boobu journal boobu dafa commencé fësal. maanaam li nga xam ne yëpp moom lañ doon nëbb. que loolu tax organe a mhm. que. kooku ñu daan wax Maten Fall Babacar Ba à l'époque nga xam ne moom c'était le grand monsieur de Kaolack mhm. il avait tout fait pour commencer dem déstabiliser ñu ñëw 80 Abdoulaye Wade élection 78 yi am je crois 18 député mhm. mais ils ont tout fait ba décapiter le groupe le group parce que à l'époque ñoom groupe bi nga xamante ne ñoom moom la ñu amoon dañ def lu tout ba décapiter group bi ba nga xamante ne desetuñu woon sax 10 députés je crois 9 9 la ñu nekkoon mhm. ñoo ñëpp transhumé dem dem parti socialiste mais transhumation yooyu amul njariñ parce que bu soo gisee par la suite Abdou Diouf 1983 88 déjà trouble yi commencé woon na ba Abdou Diouf a presque avait presque perdu le pouvoir transhumance yooyu continue continue ba ñëw ba 2000 bu doon transhumance Abdou Diouf du fi jógee Abdoulaye Wade aussi bi mu ñëwee il a continué cette même logique de la transhumance amul lu mu deful il a tout aussi pour déstabiliser le parti socialiste ba presque mën nañu wax ne PS sax dañoo wax PDS c'était le PS bis mais mhm. loolu aussi gis nañu mujj benn parce que xamul tax mhm. loolu dafa nekk loo xamante ne ni àndut ak éthique en matière politique te sénégalais yi nag li may wax toujours ma ne ñiy voté fii ñoom dañu am benn maturité démocratique boo xamante ne politique yi amuñu ko mhm. te soo gisee nee leen alternance am fii du ndamu politiciens yi mais ndaw citoyens yi nga xam ne ñoom ñoo am maturité boobu te loolu nag du ci parce que ñee seen éthique taxul éthique politiciens yi taxul Sénégalais yi voté voté leen dañu sentir ne alternance dafa war a am ci dëkk chacun am benn mission boo xam ne nii moom nga war a moom nga moom nga moom nga war a accomplir nga xëy jëm jël sa carte dug dem sa bañ gàcce dugal voté ki nga xam ne moom nga war a voté Sénégalais yi je crois que su fekkonte ne transhumance mooy tax président toog fii mën naa wax ne Abdou Diouf du fi jógee Abdoulaye Wade du fi jógee moo tax man dama ne président Macky bi mu waxee transhumance te moom aussi même transhumance boobu fii wala fajiri waxoon na ko fi yéen sax passé ngeen éléments yi moom moo fi ñëwoon taxaw de il rebute la transhumance waxoon na ko fii ba éléments yi ngeen repassé ko aujourd'hui il est au pouvoir il avec les réalismes du pouvoir mu commencé di bénir cette mais loolu nag dafa àndut ak te xam nga mooy li mu wax rek wax benn kàddu ba pare say jëf après ñëw waroo ak kàddu yi nga xam ne moom la waxoon. Mhm. te sénégalais yi dafa am loo xamante ni daanaka dootuñu ko pardonner kenn. li nga xamante ne moom ngay diggee wala benn comportement bi nga xam ne da nga koy am ba pare mu ñëw àndut ak éthique. dans la pratique loolu fa heure boo demee élection di nga ko diggaale ak ak sénégalais yi. Mhm. parce que Ablaye Wade nag boo gisee ñu sanctionné ko fii en 2012. mën naa wax ne certes troisième mandat bi c'est le mandat de plus. Mhm. mais du question ay infrastructure mais dafa am benn. kii moral boo xamante ni la benn contrat moral boo xam ne Abdoulaye Wade ne l'a pas respecté avec le peuple te moom nga àlli moom nga doon wax léegi mooy sa fam wax waxeet malheureusement tey et ça le déplore dans le dans la mouvance présidentielle surtout du de, de, de, au sein de l'APR daf ci am ay kilifa yoo xamante nii il pousse le président à se dédire te loolu c'est extrêmement dangereux quand Moustapha Cissé Lo se permet de dire que toute la politique du monde est faite wax waxeet n'en déplaise à ceux qui veulent la réduction du mandat. En tout cas, moi, je m'opposerai systématiquement à la réduction du mandat présidentiel. Moulou Russi, qui est de, de, de, de Feke Machibole, d'année, ce sont les comportements, ce sont les situations qui dictent les comportements. Donc, que les gens prennent ça comme étant du Wahwahet, moi, je crois que ce n'est pas son problème. Mbaye Ndiaye ñëw aussi il a dit la même chose daan ne président bi waxam constitution moo ko ëpp moo gën a moo ko gën a am doole donc tey ans yi mënuñu ko wàññi ci sept ans yi ci la ñu kii maître Omorim daal ne politiquement économiquement et je crois juridiquement ce n'est pas justifiable la réduction du mandat waaw mais te seen président le président de la république taxaw def engagement boobu wax nekk sa leaderu parti wax loolu yéen ngeen bëgg a taxaw pousser le président à faute ngeen bëgg a pousser le président à se renier soi-même mm-hmm. mais où est l'éthique dans tout ça parce que aussi nag quand on nous oppose le droit que éthique dafa am dafa am solo aussi te éthique boobu mm-hmm. homme politique yi suñ ko amul sénégalais yi ñi nga xamante ne ñun ñooy tànn ñi ñu war a jiite. Mhm. toujours dafa nekk valeur boo xam ne ba léegi sénégalais yi dañu dañu gëm loolu. est-ce que moom président aussi war na cee jël conscience yaakaar ndax ñi puusoon Ablaye ba mu dem. mais moom moom moom la loo moo ma ne moo tax ma ne moo tax ma ne boo gisee ma ne. doguma la hmm? doguma la ci li nga wax parce que da nga tudd léegi léegi Moustapha Cissé Lo. moo fi wax toog émission. Hmm. daan ne man dootuma nekk opposition.

mu am kàddu yoo xam ne daf ko waroo ak askan bi parce que loolu Sow wax na ko léegi dafa am benn contrat benn engagement bu mu signé ak peuple bi su ko renier par jour lay def te day nekk escroquerie politicienne parce que da nga naan ñaata nit tey peut-être ñoo adhéré woon man ci sama ci sama position bi ma waxee ne damay réduire sama mandat de cinq ans parce que aussi li nit ñi war a fàttali ko cinq ans yi Abdoulaye Wade moo ko delluwaat sept ans par la voie parlementaire mais en 2001 bi ñuy voté constitution bi sénégalais yi dañu voté pour la réduction du mandat à cinq ans donc sénégalais yi fañ nekkoon. mosu ñu fa jógee. c' est Abdoulaye Wade qui est moom moo ko jël yóbbu ko à sept ans sans la assentiment populaire. donc je crois que dafa nekkoon injustice boo xam ne président bi mu ñëwee. d'emblée daf ko waroon a daf ko waroon dindi c'est-à-dire question boobu président bi mënoon na ko évacuer dès le départ. Mhm. parce que aussi bi mu ñëwee nag vraiment la question du Sénat là. Mhm. mais on a fait une révision concernant le Sénat dañ ko supprimer. ci lu gaaw. Mhm. nañu def évacuer problème Sénat bi problème mandat bi nga def mënuñu ko woon supprimer. mënuñu ko woon évacuer du moins. bi ñu delloo le mandat du président de de, l'Assemblée nationale pourquoi on n'a genre obscurité boo xam ne en tout cas benn position inconfortable boo xam ne ni mhm. léegi xamatul lan lay def mhm. parce que fi ñu toll nii ñi nekk ak moom yàq nañ xelam mais peuple bi aussi fi ñu ko jàpp ba léegi ñu ngi ko fa jàpp léegi nag président bi il est dans une ñu wax ko ñu bañ ko wax il est dans une dans un dilemme cornélien actuellement président bi xamatul lan lay def mhm. parce que su ko leeroon ne tey jii su demee 2017 élection il va remporter ça haut la main suba suba on va procéder à la réforme mais fi ñu toll nii nag président bi ci boppam il est hésitant mais lu mu war a xam moo di sénégalais ñoo ko dénk li mu yore gis nga bu ñu doyle ci moom bu subaa quel que soit ses réalisation nit ñi fa ñu jaaroon ba génne Abdoulaye Wade fal ko moom noonu la ñuy def aussi ba génne ko fa fal keneen donc je crois que problème bi ce n'est pas nañ ko bàyyi deux ans mu yegale ay ay ay ay réalisation gis nga dëkk bi c'est en perpétuel construction. construction en deux ans on ne peut pas faire ce que l'on n'a pas fait en cinq ans. donc mm. loolu j'ai ay waxu nit ñu daanu saret rek la. léegi nag moi je crois que te foofu lay daanalee. Mm-hmm. il est temps que ñi nga xamante ñoo ànd ak président bi suñ ko bëggee dimbali dañ ko jàppale ci li nga xamante ne moom la. engagé woon devant le peuple mu dee mm-hmm. damay réduire sa mandat ñu jàppale ko ñu xool quels les moyens institutionnels yoo xamante ni moom la président mën a utiliser ba mën a réduire mandat bi suñ ko mm-hmm. ko ci président bi du ci génn mais ñoom ñooñu aussi nga xam ne ñoo ànd président bi aussi ñoom aussi duñ ci génn waaw ndax dañuy ah. fàtte ne ci garab gi lañ yeeg buñ daanoo fi la ñuy bàyyi garab gi waaye garab gi buy daanu moom ñoom ñëpp lay yóbbaale waaw <laughs> Abdou Rahman Sow parce que ci fan woo nga xamante ne toll nañ ci tey ci lu aju ci doxalinu réew tour de table woonewaat rek ne circulation bi war pouvoir ñaar rek la benn bi mooy voie bi nga xamante ne ordre ngay rétablir. Mhm. beneen bi mooy nga fexe bi prospérité am. Mhm. ci ñaari fan yooyu ak li nga jàngat gis ko dégg ko est-ce que sa xel dal na ci ñaari euh, voies yooyu ñuy xaar président mu circulé ci. waaw ci ñaari voies yi mooy li ma doon wax sànq rek dafa am loo xamante ni moom euh, discuter si dina xaw a jafe sur le plan de la prospérité euh, et puis ça nous renvoie au plan économique. ñu gis ne que foofu peut-être la Macky lay douter sax malgré son cursus. fi mu jot a jaar yëpp fonction yi mu jot a bu demee ba sur le plan économique mu jékki-jékki jaaxle parce que tamit gis nañu avec son programme euh, le plan euh, Sénégal émergent non seulement benn plan standard bu ñu tubaab yi jox boo demee ñi ngi wax Gabon émergent Cameroun émergent benn plan standard la bu ñu jox ñun ñëpp ñu bokk ko mais dafa am lu muy lu muy nëbb loo xamante ni euh, blocage bu extraordinaire la boo demee ci PSE 34 pour cent des financements proviennent en tout cas des forces occidentales am na kenn ci seen ministre yi ku toog aveu def benn aveu ne mais bu ñu lay signer pour jox la lebal la mais par exemple marché yëpp seeni entreprise ñoo koy gagné quand on spécule sur le taux de croissance de 6,4 ou bien 5 mais kan mooy bénéficier de ces rentes là mais son les entre les grandes entreprises tubaab yi nga xam ne ñoo fi ne c'est Total se c'est c'est euh, France Télécom par euh, Orange ak ñeneen ak ñeneen parce que bu ñu nee taux bi yokku na. ñu ci werante que et que le pouvoir d'achat des Sénégalais augmenté wu. Euh, ñu dolli bu ñëwee pouvoir d'achat bi augmenté wu nga war a mën a réduire le prix des denrées ñaar ñëpp amul donc sur le plan économique dafa xam foo xam ne Macky daf fay dafa mel ne genre piège la nga dem defar sa plan yoonu yokkute dem ba ci biir gis ne du dox. dem fay cinq milliards de nos francs jox ko ay benn cabinet ñu indi le PSE dem ba ci kanam nga càng alternative beneen gisuma ko que ce soit le président Macky Sall que keneen ku mu fi mënti doon man gëwuma ne ponctuellement le plan économique par rapport à la prospérité mën nga ñëw régler ko là on, on, je le dis franchement keneen ku fi ñëwit euh, le dictat en tout cas de ces institutions financières le FMI la Banque mondiale et tout ça bu ñu la joxee nii nga ñuy delloo gis nañ par exemple yenn entreprise yu am doole yi mel ne ay Enel bi ñu ñëwee plus de 400 milliards de francs CFA ci Ila Touba bi gré à gré ak yeneen ak yeneen côté prospérité bi moi je pense que ça va euh, avoir des résultats euh, de manière latente mu mhm. ñëw mhm. fi ñuy xaar Macky Sall ce n'est pas compliqué parce que le débat intellectuel que l'on pose au niveau de ce plateau wala yeneen plateau yi ñaata Sénégalais lay interpeller pour euh, en tout cas budul ay plateau wolof yenn spéculation technique yi sur le plan économique mais nit ñu comprendre ñu ko ñi li ñuy bu weesoo li ñuy lekk ak la ñuy naan la ñuy fajoo mais la ñu jàpp ne baaxul ci démocratie parce que dëkk dafa am lu koy téye Youssou Ndour dafa mën way trop. Euh, dafa ne woon réew bu amul dëgg du am dëgg boobu amu fi ba léegi ban intellectuel ban Sénégalais mën a seetlu xool par exemple CREI ni mu demee moo d'accord na jaar na yoon mais boo gisee ne CREI malgré spéculation yi on nous parlait de réduction des comptes lañ la dénkoon au niveau peut-être d'un ministère ñu xool foo ko dugal annoncé yi dañ la ko jox quatre cent vingt milliards ñu ne jaaroon na assemblée mais defuñu la lumière sur euh, annonce yi peut-être bu ñu defee la lumière xëy na di nga di nga obligé am foo téye balde wala yow mii deful la lumière ñu téye la parce que satuloo ci bi ñuy wax waxu PNDL Aminata Ñaan euh, Aminata Tall mais waxante ne fekk Macky Sall waxu ju ñaaw ci ab programme national de développement local plus de cent millions yoo xam ne ñi ngi ci doon spéculer bi ñuy wax les les les les fonds de Taïwan plus de yoo xam ne duggul euh, loi des sa responsabilité est engagée donc sur le plan de l'enrichissement illicite ak yooyu ñu la ci doon xaar ñeen ñu ne 4000 milliards envolé wu nañ bu ñu ko indee day dolli suñu économie jékki-jékki neewaat 2000 amaat dans soxo mi ngi génn malgré son âge ak cër bi ñu ko jox keroog euh, naan nañ bàyyi spéculation yi nañ bàyyi wax ju bëri mais ñun ñoo njëkk wax ñu du doon xaar 2000 milliards yooyu wala milliards yooyu ñoo renforcer le trésor public ñu mën a financer ko lañ ci jàpp benn nit ñan ñoo fi njëkk campagne contre Karim c'est nous la COS M23 avec le forum civil pour qu'il y ait la reddition des comptes mais pas une loi d'acharnement ñu ko fa doon xaar 5000 milliards de gré à en trois ans la Macky Sall euh, def bañ ko laajee dafa ni euh, voie administrative ak yooyu dafay daf daf leen di tardé ñu dem ci Petrotin deux cent mille deux cent milliards de francs CFA yoo xam ne ñu ngi ciy spéculer moom ak frère am amuñ ci lu ñu leer nga dem ci ArcelorMittal deux mille cinq cent milliards yoo xam ne mais dajaleel ñaata milliards la mais fa lañ doon xaar Macky Sall une justice libre maa ngi lay delloo sànq ci euh, Nixon ba muy démissionné la justice a fait son travail mais qu'un procureur qui qui en pleine audience est renvoyé par l'autorité du président de la République mais bu ñu nax justice amu fa justice amu fa tey jii euh, lu mu tudd les magistrats et les avocats ñu fiy dóorante ci affaire de ay corruption kii jiñ na ma lii kii jëñ ma lii parce que Macky Sall li may wax rek du affaire daf ko bett ëpp ko doole. pour man da koo bett non seulement da koo bett mais il a un parcours il cursus nañ ko nañ nañ ñu xool par rapport au patriotisme ak yi Macky posé woon mais Macky moo fi représentation diplomatique yëpp ne euh, di di ternir l'image de Idriss Seck moo fi taxaw ne partie du fi tudd réew mi Macky moo fi dem voté amul carte d'identité Macky moo fi Macky moo fi kooku moo yor réew mi tey am fu mu jaar. et eh, fi mu jaar bi ma déggee seen naataango boobu Alioune Fall ni kon vengé Marème dama xoolaat dictionnaire qu'est-ce que ça kon vengé Marème parce que euh, au sens figuré mooy xanaa bu ñëpp ñëwee contre yow xeex la ne doo fi jaar nga fexe ba jaar koo koy jàmbaar man bu ma jàppee Sénégal am na kenn kon vengé Marème c'est Ablaye Wade c'est Ablaye Wade qui a porté un combat ci xeex ak démocratie mais Macky Sall bañ lay nommé directeur Petrosen promotion interne par par loolu bi ñu lay def ministre de l'intérieur rek promotion yi si am temps temps yi dañ ne woon xëy na Idrissa Seck loon jàppale bañ lay def premier ministre ñi ngi doon spéculer naan Ablaye Diop la ñuy fal wala Mamadou Seck Karim ñëw téye la yóbbu la donc gisuma lu extraordinaire pour Sénégal yi ñuy seetaan ñu yeewu gis nga tamit askan dafay nangu manque on parle de nos politiques et tout ça moi je pense que le mal qui gangrène au Sénégal est général au niveau de la presse, au niveau des foyers religieux, à tous les niveaux, il faut qu'on ose dire que le problème de valeur et d'éthique se pose. Même par rapport à nos leaders politiques avec leurs prétentions. Mais qui ose parmi eux xam ne lii gàllankoor la ci démocratie wala ci bonne gouvernance ngay dénoncer yenn taar yi nga xam ne ñu ngi suñu ay textes parce que suñu textes yi ñoo désuet il faut le dire textes yi organisé li ñu yore réew mi indi un pouvoir exponentiel Euh, superpuissant d'un président de la République qui décide de tout. Mais vous voyez un candidat ou bien un potentiel candidat qu'il s'appelle Khalifa ou Gakou ou autre, dénoncer Yenni. Non, non, non, Dekibidokoul, Bicherne. Mais le véritable débat ne se pose pas. On a des problèmes avec nos textes qui prennent une personne a une superpuissance de pouvoir, il décide de tout. Fille le Tao. Parce que nous sommes Parce que moi je pense que calcul, le xam nga ñun la ñuy a nax na gars yi seetlu c'est une élite. mais 15 réformes ne changeront pas ça. mais non seulement les réformes pas mais c'est-à-dire gis nga nit xam nga ci lu ñu jàpp. Mhm. parce que problème valeur yi nañ ko teg. ñun loolu la ñu xam li ñu xam mooy jëf dafay méngoo kàddu. et puis bu dugguñu ku ñuy nax parce que dañuy nax ba sonn même réforme 15 réformes yeeg mais bi ngay jël promesse tu avais parlé du mandat la réduction et le nombre tu n'as pas toutes ces réformes peuvent passer à l'Assemblée nationale même s'il y une majorité mécanique boo xam ne xam nañ ne Macky la fa toogal mais yow tey jii boo mu jëlee ci sa réforme mooy benn disposition boo xam ne agréé wu ma je vote contre le, cette, cette disposition mais je compte non euh, euh, en tout cas la réduction du mandat bu dee noonu la ñëpp taxawee mais mandat bi du jàll ñun dañ gëm ne Macky Sall ku ko bàyyi woon bu leen indi woon spéculation ak débat yi mu yóbbu ñu 2019 wallaay dañ koo gëm loolu nous en avons la conviction moo tax gars yi araftu ko boor bi araftu ko boor bële li Sénégalais war a jàpp mooy ñu dund ak Ablaye Wade dañu dayaloon par rapport à ses abus comme ni mu ko waxee am na yenn réalisation yu def tout mais les Sénégalais dañu loon dafa doon abusé quoi que l'on puisse dire Macky Sall en euh, tout cas endosse na endossé na huit ans yi Ablaye Wade def parce que li ci baax rek la ñuy jël mu mbubboo ko réalisation Ablaye Wade yëpp Euh, ñu ne Macky Sall la mais dafa am ñu si négatif yoo xam ne daf ko endossé woon fàtte wuñ ko mais bi ñu bi mu adhéré ci mouvement de foule bi ci dynamique populaire bi dynamique de masses pour combattre loolu mais dafa adhéré woon ci idéologie yi ñu fi tegoon ci ci convention morale yi ñu fi tegoon yëpp dem signer assise nationale en deux tours xëy jël six cent millions de francs jox ko ñoom Mbow bi mu paree lu mu wax wala ay nitam dañ génn ne euh, dañu ëppal dañ jàll liñ leen santoon le 23 juin bii passé à la place du souvenir nous on a interpellé Ismaïla Madior parce que ñun dañu gëm que balaa ngay émerger ak dañuy regrouper forces yi ñu converger mooy la problème du dialogue politique il n'a jamais essayé woon pàcc yi nekk ci réew mi xam ne ñun ñoo ko bokk nañ waxtaanee réew mi pour jàmmoo ci kàddu la yem mais saa yu tegee jëf nga xam ne kii fa muy jëm c'est un calendrier politicien basé sur ay ay calcul yu mu am pour deuxième touram un homme d'état nag boo ñëwee tu dois songer à régler les problèmes mais sa réaction boo ci xalaate boo ko euh, concentré mooy jël société civile rey ko mm-hmm. M23 bu ngeen di wax ñu jël benn siège jox leen saa yu ñu demee seeti président mu yëkkati ay millions jox leen bu ñu génnee ñu def simulacre seen i yenn collègue am na ci ñoo xam ne ku ci mel ni Latif ba ñuy xeex Ousmane Ngom pour en tant que premier euh, ministre de l'intérieur mm-hmm. mais Latif daf cee bokkoon fan yële ci ginnaaw dañ ko laaj mu ne c'était pas un combat de principe c'était en combat de circonstance gis nañ fi Souleymane Jules Diop gis nañ fi euh, ni mu tudd euh, yaa xam mbay on cite des bi mu fi génnee terme boobu dynastie Faye Sall mais bi ñu ko falee daf ko daf ko fàtte gis nga fi euh, da ngay am gàcce dootoo ñeme sax taxaw di woote ay valeur ak principe boo gisee seen waa ji ni mu def bërki dem mu war ak loo mais foofu mooy feebaru Sénégal te c'est à tous les niveaux amuñu ay kilifa nit ñi jombuñu Sénégal foofu lañ toll te da nga fi wax lu am solo mooy conséquence su comportement Macky Sall boo gisee Moustapha Cissé Lo avec certaines libertés ñoom yum avec certaines libertés ñuy encourager le président à parjurer ou bien à renier renier sa parole parce que tout simplement il estime que dara du leen ci fekk c'est ça le combat qui va être mené mm-hmm. qu'il y ait des sanctions autant niñ koy ñoom dans leur par rapport à leur autorité nit ñi sañee di sanctionné askan wi foofu la war a toll moo tax sànq ñu indi dimension poursuite suite parce que boo bu ñu seetloo quatorze morts Ablaye Wade vraiment ak AGM ne ngelaw luy jàng jàll la Macky Sall fekkee ko jour boobu mu daw ñu nguufaan ko mu dugg ci kër làqatu fa ndaxte mu fa toogoon jéem yi dal suñu suñu kaw mu gis Mamadou Diop dee gis euh, Fodé Ndiaye dee gis ñeneen ñëpp dee mu insensible à cela bay jël risque ba loolu war fee mën a amaat après mun a dara du ko ci fekk wallaahi mënu tane waruñu koo nangu foofu la ñu war a indi débat bi mooy bu ñu amul président de la république nit dong lañ duñ leen nangul ñuy def leen neex askan wi di perte ñu leen mettre dans les condition ñuy noos ba pare jël risque ci ay Moustapha Cissé nee na yum nee na muy naan ñu conseil constitutionnel ba nit ñi dee fi après mu neen j'étais président de la République mais il y a des dispositions qui nous permettront de ko ciy conseil Ismaïla Madior Fall ak ñeneen ak ñeneen la ñuy wax ñu xam nañ ne ñun duñu ay dof ils ont porté des des propos euh, contraires mm-hmm. ñii koy incité ils seront tenus pour des complices te lépp lu ñu mën a def pour dal seen kaw dinañ ko def ci kàttanu yàlla Abdourahmane Sow Moustapha Diop kon ñu gis ne président de la République moom bu buggee am initiative politique dina ko am dina ko jël mm-hmm. parce que boo xoolee ca assemblée nationale ca groupe parlementaire o moom bokkul ci coow li def leen woo wax ak ñoom ñu def loolu mm-hmm. ci wàllu transhumance yi gis nga ne intervalle bu nekk rek dina xëcc kenn soit ci benn parti jëm ci réew mi wala ci PDS wala ci feneen indi. Hmm. te loolu am na lu mu koy jëriñ. mais bu ajoo ci wàllu transhumance boobu nga xam ne bañoon na ko mais nangu na ko tey ni ñu wootee rapidement euh, pour ne transhumance entre groupe à l'Assemblée. Hmm. ak ci wàllu transhumance ak cumul de fonction mais dañoo gis ne ba léegi loolu doon loo xam dafa yéex. cumul de fonction kay ci li gën a tardé réew mi ci la bokk. parce que mm-hmm. saako ñu ngi tudd député président de conseil bëri na. Mm-hmm. mais euh, ci ci wàllu euh, je crois que président xëy na li ko doon gënal mooy euh, que sénégalais yi rawatina journalistes yi ñu ñuy toog fii di débat ci mandat ñu am même comportement que ay député wu. Mm-hmm. su leen convoqué pale nu leen def leen lii ak li ñu def ko yem Sénégal nag tollatul foo xam ne da ngay toog ne bu bu leen débat ci lii ne ci débat mhm. il faut ñu débat loolu je crois que wax nañ ko waxati ko mënu mënu mënuñ kanam lañ ciy jëm mais mënuñ ci jëm ginnaaw mhm. sànq seen sall dafay wax loolu dafa may fàttali lu am France mooy comportement wu ñi nga xam ne ñoom ñoo wër président Macky Sall gis nga Hollande bi muy def campagne am dafa taxaw ne mon ennemi c'est la finance tout la gauche française topp ko ci loolu gëm ko ne ennemi si mooy finance mhm. français yi gëm ne kii bés bu faloo li leen finance di teg muy banque yeeg multinationale dina ko xeex ba mu jóge fa mu nekk président dévié ci chemin boobu xam na nan la français yi def waxuma français yi mais di des membres de son parti ay député lu ma trente député dañu jóg jàkkaarlook moom président de la république France ne ko jamais ñu ànd ci li ngay def di xeex son premier ministre Manuel Valls biir gouvernement wu Hollande am ñoo xam ne parce que jéggi na wax ji mu waxoon ci lañ quitté gouvernement bokk na ci euh, les écologistes ci lañ quitté gouvernement ndax kàddu gi mu waxoon te sàmm ko